jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi ñuy topp ci 3W Thiès Prestige waaye jërë ngeen jëf suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñu safoo di ñu seetaan seen télévision régionale mbokk yi amaan nañ mbégte ak contentement ci seen émission pajum cosaan mbokk yi tey nag dañoo del si fi nga xam ne ñëwoon nañ fi at mee ñu génn muy jasab mbokk yi ma ne jasab nag xam naa ne Sénégal gépp dañuy dañuy àndandoo seen xel dem tabbi ci menn mbir mbokk ci ñooñ lañu seet si waat tey waaye keneen ci ñoom ñu koy wax Gormak Faye góor mag fay nag mbokk yi moom mari ngila ngilaan fay min fi daan fekk mari moomu moo ko jur tey nag doom ji lan seet si buñ fi mujjoon sëtam lan seet si woon waaye tey muy Clément waaye tey ñu ñëw ci doomam mbokk yi ñii nag xam ngeen ñoo yor wàllum yokk ngóora maanaam sàkkara bu gàtt bu néew kattan ñoom ñii ñoo ci man dara te ñoo ngi seen digg àll bi nga xam ku fee ñëw ñu faj sa aajo mook jàngoro joo munti amal rek ñu faj ko mbokk yi ñoo ñu lañu si tey seen télévision régionale ñu ànd ak sama caméraman aadi war a dugg nag ci biir xuntu mi biir xur wi nga xam ne fa ñu yokkee rek ndeysaan ki am ki am ki am jàngoro ju gàtt kon aadi dañuy ànd dugg ci biir fekk ki nga xamante si ni mooy gor mag fay seqam ay waxtaan ci wàllu bismillah aadi nga top man dem ci biir ñaa laa gis ñoo ngi sant yàlla wër kay yaa ani ani pa? Pa, paa mu ci biir mbaar mi ajo moom lan seesi waaw dëgg agal ci biir agal ci biir waaw ajo kon adi? Adi topp moo mbaar mi nag mbokk yi xam ngeen ko mbaar mi ah <laughs> sama mbaar maa nga eh, kor moom maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant lu bëri bëri ndaka mbaar mi ah mi de mu fi gaa yaa ngi ciy góorgóorlu de client yaa ngi waaw client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw góor mag mbaa xam ngeen seen mbir mi mi ngi commencé lëmbër réew mi àdduna yëpp ñu ngi naan jasab yokku ngóor a yokku ngóor a yéen nan la leen di ak fu ngeen ko jële yokk ngóor bi suñ cosaan la depuis suñuy maamaati maam maanaam yokku ngóor ak mu dëgër bu baax a baax ci la ñuy yëngatu mooy suñu aada waa dëkk bi yëpp xam nañ ko ci ñun ba tax itam dañuy wooye fu ne. te itam yaakaar naa ni ngóora bu normalule wax dëgg yàlla coow lay indi ci kër te itam ah defe naa ni bokk na ci téye kër ah ba tax na tamit ñun amuñ ci leen luñ ciy rus wax dëgg yàlla ñu ci jàppale doomu aadama te it ah léeg-léeg ñu gis nit mu ñëw ñu toppatoo ko mu dem léeg-léeg am ñoo xam ne sax bu ñuy dellu si waat indil ñu ndax kontaan maanaam day ñëw ànd ak jàngoroom ju gàtt ngeen dimbali ko ba bu demee mbir mi baax lool. mbir baax lool dëgër bu ndikkee dañuy indaale ah, waaw nit ki boo kontaanee euh, ci sa nit ku la jàppale. ah day daal doon xarit ak mbokk ba tax na itam léeg wax dëgg yàlla. dina leen dikkal yenn saa nit koo xam buy faju si di ànd ak jabaram ñëw. loolu de faj naa fi nit ba taay mu ànd ak jabar ji. jabar yi sax yenn saa yi moo koy tànnal. ma xool ci affaire ni ko jëlal jëlal benn. xool bii ne ko jëlal bii mu doon ñaari ñëpp mu des bopp bi waaw. bopp moom nee mooy dimension normal dimension normal la waaye am na ñoo xam ne dañuy gàttale ba nga xam ni dañuy jël vingt cinq bi. ana vingt cinq bi. vingt cinq baa ngi nii. gisoo boo defee ñaari ñëpp. bop bi day gëna gudd li kay ëpp na bop li kay benen ngëb la benen ngëb la dafa am gori yi dañu wuté am na ñoo xam ne li la yor lu toll ni baram bi baram si baram bi la yor te wax dëgg yalla li mom yorut ab jek waaw ñu bari wax dëgg yalla wax nañ ma fi ne seen sey taxna ndax loolu te wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax. mais mais mais père yëkkatil sa baaraam baaraam bu toll nii. mun nga ko mën a faje tamit ba mu mujj toll nii. déedéet xam nga lu mu gën a gàtt da koy jox bu bu bu gudd bi su ko defee lu mu dee dee dina am ñaari ngëb bi mu des bopp waaw. ñaari nga bëgg bopp daal ko ko ci am daal moom jarul kon nga ñëw fii. déet ñaari nga bëgg bopp moom ku ko am moom jarul ngay ñëw fii wax dëgg yàlla loolu baax na moom daal bu ko yéesee daal ci lan lay soxla ci jasab ah déet bu ko yéesee moom wax dëgg yàlla ah jéeg yi des fois dañuy mer de wóor na suñu borom mhm, ba tax tam tamit ñu bari dañuy ñëw di faju si fii te it comme suñu cosaan la suñu aada la te itam waa dëkk bi yëpp xam nañ ko ci ñun ñu nit ah ñu ngi ciy jàpp rek di defar di di di waxtaan ak suñu nit ñi ñu seet si waaw yow ñu ñëw fi fekk fi ku ñu wax Clément ñëwaat fi fekkaat fi beneen waay mais yow ñun yow yaay seen mag yow. man maay seen baay ñoom ñëpp man mii maay seen baay ñoom ñëpp ñi kii ci kër gi man maay seen papa. yaa leen jàngal li waaw ci sama loxo lañu ñu jaar ba suma ma amutee jot sax man leen dem leen yóbbu leen ma kii ngeen defaral ma ko waaw. kon kay yow yaa gën a wex yow sa bas mooy gën a dëgër mooy tar. déet comme maay seen bàyyi xam naa ne ah li fi nekkoon daal mi ngi fi ba léegi. Hmm. mais li ma jaaxal loolu lañ jàngal jàngal di nga dese yoo xam ni moom yow boo defaree la nit kii mooy gën a dëgër. non man jox naa leen lépp gaa waaye ah léeg am client boo xam ne bii def may xaw a yàpp rek dugal ma ci otoom indi ma fii ma topp tokk mu dem waaw am na ñoo xam ne buñ ñëwee góor mag fay la ñu bëgg a waxal Gourma ak Faye moo leen di toppatoo euh, nit ku nekk daal ak ni nga koy lijjantee la waaw. mu mel ne nag euh, yéen da ngeen dangeen dangeen ngeen a da ngeen a choisir Bantu Selaan loolu secret bi lan la. Bantu Selaan secret bi mooy Bantu Selaan ci cosaan gi la bokk Bantu Selaan da gaaw a waaye day gaaw a jooy te jooy tamit waxoon naa ko fi daan niroog daanu. jooy daan luy daanu day jooy bon saa ko goree mu mu jooy mu wàcc foofu la. lu tax kon ngeen choisir ko moo ngeen a jël kàdd wala cëng mu gën a dëgër. non bii nag moo ànd ak njooy njooy mi mooy wàllum góor mu ànd ak njooy njooy mi boo ko boo soxlaa mu jooy waaw mu wàcc. xam nga bu baax li ma lay bëgg wax waaw waaw. léegi nag ngeen jël ay dimension yu différent waaye li ma ci gën a jaaxal chaque jour su ma dikkee dama koy fi fekk muy ngóor gàtt mi ngóor gàtt mi moom moom moom li tax rek ngeen yàpp ko. xam nga boo ngëbee ñaari ngëb dootoo gis dara. dootoo gis dara léegi kii euh, am na ñoo xam ni ndeysaan suñu ñëwee dañuy xaw a ragal jël bii. bii moom baaxul. ah wax dëgg yàlla day ah. nit ki boo ñëwee dangay choisir rek parce que ñun obligé moo ñu kenn pour mu jël leneen moom mooy choisiral boppam mais am na ñoo xam dañuy xaw a kii ndeysaan ñu jël bi waaye bu ñu demee ba ci biir ba am bii ñu doog a dellusiwaat nag ne dolli ma. dolli ma te yéen bu ngeen dollee mu ëpp du ko wàññi ndax dolli wóor na. déet waaye moom mooy tànnaat la muy dolli ñun du tànnal kenn. soo fi yegg see yaay tànnal sa bopp waaw. ki mu fe ki fekk mu fi mu njëkkee dañu moom bu ëppee du ko wàññi yow bu ëppee. Euh, boo gisee sax ñu wax loolu ku yokk ne mën naa wàññi mais xam nga li ñuy bañ nekk ñu fi di jouer film. yow wàññi dox dëgg yàlla loolu loolu moom liggéey bu metti la am na ci ñoo xam ne ñi nag jéggi léeg-léeg yuuxu leen ñu ñëw choisir bu mag dem fayantoo ba pare del siwaat ci yow ne la wàññil ma loolu liggéey bu bari lay doon moo tax bant yi fi nekk yaay choisir bu la neex. waaye daal amuñu jot ak yokk ko wàññi. dina am ñu leen dikkal ñoo xam dañuy dañuy bëgg a meranteeg seen jabar rek bëgg leen def lu métti tax ñu yokk. waaw waaye nag bant yi fi nekk jaadu na moo tax duñu fi def leneen lu dut bant yi. bii moom jaaduwul teel bii moom jaaduwul. te ku ko jël dinañ leen a jaaduwul kii mooy arme bi ku ko jël nañ leen a jaaduwul moo tax ñu bàyyi ko fi. dina am ñu koy jël. dina am ñu koy jël ñu tere leen ko. ñu lànk. ñu lànk parce que moo tax ñu teg ko fi waa lii dëgg-dëgg xoolal sa <laughs> dëgg-dëgg nag sa li lii daa xaj ah déet am na ñoo xam ne da jigéen ñoo xam tarkalla da lii da cay dem ba ba des sax. waaw dëgg la nit ñi bokkuñu yem waaye nag li nga xam ne mooy defar kër gi moo jaadu waaw. waaw léegi yokk yokk moom xam nga yàlla dafa sàkk doomu aadama ci ci ci ni ko ni nga xam ne moom la organam attan yokk bi du ko indil jafe-jafe ci wàllu xolam. Ah, ku feebar ku ne war a faju waaye faju ba wér yàlla nangu na ko aussi sibiroo sax da ngaa war a faju ji du yàq dara ci feebar ak yu mel noonu déedéet ñun ci ay reen ak ay ñaan ci la ñuy def suñu faj bi amut leen lu la ciy dabit ay conséquences dara soo defee li nga xam ni moom la faj bi di tere dëgg yàlla yàlla mën nañoo jubóole suñu cosaan na daal suñu aada la te ci lañu yëngu ba tey jii. nit ki bu la yàlla sàkkee jox la sa awra doo ca yam looy wuti ci di dolli loo ci yéene bay dolli. waaw mais nag sëy yu bari tas na ndax loolu. mais ki la bëgg a tamit na la na la na la muñal ci li nga am. waaw mais bu ko mënulee nag day dem yoonam wala mu dem seeti ko feneen. bu ñëwee ne la sa bàjjen nag lay nuyu loo ci man fekk dem na ci sekk mi demoon jasa ba ñëw. mu dem man xawma ko <laughs> yaa gën a xam fi may waxee bu ñëwee ne la sa bàjjen lay nuyu loo man te sëy yu bari tas na ndax loolu. mais mais man fi mu bëgg a waxee mooy nit ki yàlla may la sa sàkkara ci dimension bi mu bi mu soxla yow nga dem yokk ko amul ay conséquences. du am benn conséquence di. faju la da nga febar da nga war faju yalla fi indi febar ak bir waaw faju rek la am ben diine bañu faju nak wax deug yalla mais tay ji bu fekke da yok la jot na ko fimu fekke da nga yok dem ci keur ga soxna si munta and ak yow ci ci yok bobu non di moy metti wala muy dugal muy muy xawa séré lolou su dar bu diké dar dar ngeen koy def wala day amat ay rendez-vous day am rendez-vous ñaar rendez-vous lay doon mu dem ñu jox ko ay garabam wax ko nim koy def waaw au fil de temps muy ñëw ndank ndank ba tolok bant bi nga natton waaw mu defee deux mois et demi jëm trois mois dina fekk mu tolok bant bi nga natton parce que ndank ndank lay ñëw waaw. dégg naa tubaab bi ñoo ëpp lu leen di diggal tubaab bi dañuy ñëw fii ngeen leen di faj waaw tubaab bi day ñëw fii kilifa yi tamit dañ fiy ñëw mais suñu mbir yëpp dafa ànd ak sutura moo tax euh, maam yi indi ko ci àll bi waaw dafa ànd ak sutura itam. man de war ngeen a jug ci man ndax man maa ngi fi ñëw boobu ba léegi ngeen yaakaar ne leen maa jox loo xam ne ma gongi koo ñu xam ne man maay waa jasab. d' accord yow moom bala ngay dem dinañ la lijjanti ndax itam gor nga gër mi nga te wax dëgg yàlla ah war nañ laa seetaat xoolal la bu ñaari ngeb bi ak bop bi nga bëgg wala. man da naka lol koy fekke na ma. fekke nga ko wa kon ñu dol la bi degeural kecc ken bañu ko de waye ndax nda wurna lu wër péng la wa dëkk bi sax dañ ciy naan. ñi koy defar na ñi koy defar dañ ciy naan di waaw waaw. papa bu degeure kecc tek ci tol ni ah mbaa doo yéex a daanu rek mbaa daanu bi dina gaaw. déet daanu bi su gaawee dootul arrangé ndaw sidi di ay ah, ñëw rek ne pare ci nga bàyyi ko noonu. Ah, ah. waaye tamit ñëw rek bëgg faa fanaan ak kii. bëgg faa fanaan ak kii xanaa yow doo nit xanaa kay au moins benn quinze minutes bu wóor dëgg dëgg baax na. assurance bi quinze minutes la. non du 15 minutes sa dépend ci yow rek bi nga bëggee mu daanu léeg-léeg nga taxaw fóonante kërti kërti ah ça dépend rek waaye moom jàmm dina am. moom daal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam boo ñëwee jasab bañ jox la ci boo demee kenn dootu la yab. ah wax dëgg yàlla day boo boo joxee dépense bi dinañ ko teel a jël waaw mais am na ñoo xam ne ñi boo leen di joxee dépense dañ la naan tegal na li am na lu tax. guddi gaa bonoon. ah yaa ko wax du man de guddi ga neexut moo tax mun na tegal fële. waaw ah, kii boo ko defaree mbaa doo dem ba feeg ay ay at rek ñaari at ñetti at mbir ma bàyyi nag jaare fa gën a bon. déedéet bu xesee jàpp ñu tere la liñ ñay tere maanaam traitement bi yëpp juróom-ñetti fan rek la mu jeex waaw. juróom-ñetti fan donc lañ lay tere doo ci sëy ba mu jeex. bu xasee jàpp jeex na infini. infini jeex na waaw bu xasee jàpp jeex na. maanaam boo ko defaree ba mu ba mu jàpp. ci ngóor ngay dee. ah yow ñu am quatre-vingts ans ba léegi ñu ngi sëy di quatre-vingts ans ba léegi ñu ngi sëy man maa ngi ñaari jabar te làkk naa samay soixante-quatre ans. kër gi amul benn coow. coow du fa am coow du fa am wax dëgg yàlla coow amagu fa. Mhm. waa tey bu fekkee yàlla dalaa dimbali nga mel ni man foo foo foo ba affaire bi mujj bàyyi nooy népp kookum mun lañ ci dara de. maanaam wàllum tële nga xam ni jóg dara dara dara fekkee da nga koo judduwaale mu wax dëgg yàlla mënuñu ci dara. non ñëwaguma ci télé dafa am góor ñoo xam dañoo foo foo foo ba seen affaire yi bàyyi nooy népp bàyyi waaw maanaam mag surbew ba mu bàyyi nga xam ni dootul jóg wala léeg bu jógee it bu jógee it du am deux minutes mu mu wàccaat kooku moom mën nañ koo jàppale. kooku nu koy jàppale. ki lii ñuy liggéey lañ koy jàppale. parce que dinañ ko jox mu dëgër mu gëna lolu man ma yakana affaire bi mom da am lim bu xosse ba bon bon am man na bon ba pare baxat ah, wa yow bo si bureau bo pikiro xay nga tane di foofu laay waxee. Mhm. wa jigéñ ñi nak ñom du ngeen faj jigéñ ñi am na jigéen ñoo xam dañoo dañoo dañu ni yambalang manam seeni affaire dal man nga ci dugg ba genn te do xam sax demal nga ci ñooñu tamit yaakaar naan di nga leen dimbali ñu xaw fatt tuuti. Euh, xaw fatt googu duñ ca liggéey waxtaan wax dëgg ca la te xoolal bu dee wàllum defar seen ange yeeg seen taat yeeg yooyu ci la ñuy yëngu mais jigéen ñi ñooy faj jigéen ñi waaw ñu defar seen ange yeeg defaraat seen forme yeeg seen taat yeeg yooyu nga xam ni itam. bagage bi xaw a dëll tuuti nga xam ne boo ci tegee sa loxo doo bëgg a bouger mètre. am na ñoo xam am na loolu dëll nañ kaar macha allah waaye dañoo dañoo ubbeeku. ubbeeku waaw ubbeeku boobu nag wax dëgg yàlla du ñu delloo nit mu vierge déedéet amul ñun duñu ñu ci loolu ñun daal mën nañoo defar ay hanche waxtaan ak yow defaraat sa forme ak tout ça waaw. tey jii bu nit amee sàkkara bu gàtt bu yolam ngeen ñëw war ko ko guddalal ba pare dëgëral ko ko prix bi ñaat lay doon. no prix bi ñun duñ ci wax parce que ñëpp tolloowuñu te doole yemut léeg-léeg ma faj nit sax jox ko paas mu ñibbi waaw ndax doole yemul prix bi moom wax dëgg yàlla ci ñun la des. mais gaa yi tamit yemuñu kii de guddule na waaye dafa dëgërul kii gàttale na dëgër këcc. xam duñ bokk luñ bëgg kii day bëgg ku ko ku ko yokkal kii day bëgg ku ko dëgëral boobu prix yi tamit day varier. non prix du varier yow boo yokkee mën lañ laa joxaale li koy dëgëral su fekkee da ngaa guddule te dëgërut ñu jox la biy dëgëral wax la ni nga koy def nga dem boo waree yokk nag fii ngay ñëw. mbaar mi noonu faw nga dugg fi moom fii. di nga fi dugg am na sax yoo xam ni dañ koy yónnee. koy yónnee ñi nga xam ne dañoo bëgg a dëgëral ak bëgg a yokk ak yooyu mais ñaan yi fii lañ koy defee ba pare doog la ko yónnee. waaw léegi su fekkee nit ki nag moom dafa bëgg a faju nekk bitim réew nooy def ak moom. Euh, soo duggee ci whatsapp bi expliquer ma li nga bëgg dinaa xam noonu fan laay jaar ak yow ak nan laay def ak yow ba nga jot ci parce que téléphone yëpp am whatsapp ngay yónnee whatsapp léegi léegi Amérique ma jot ci waxtaan ceek yow. ma yaakaar yéen ngeen koy jàpp def ci seen ni yéen ngeen daan def. même bu ñu ko indiwulee fii dina wax mesure ñu defal ko ñaan yi fii defal ko ñaan yi fii yónnee ko ay garabam bu ci neen ñu wax ko ni mu koy def. yow noo yokkee. Hmm? nan ngay yokkee yow. nan laa yokkee euh, bant mën naa ko envoyé Amérique léegi. non dama nan ngay yokkee doo ma ni ngay yokkee. jërëjëf. soo ma yokkal dama fay caméra bi nag moom. am nga ni di nga sa tubay bu boobaa de. wool kenn. bant bi day tàkk ba ay wasan hmm? waaw ay nok ɗaari ka ho ko en lak fo kala di garina ɗi hañdina kim ɗi hañnano sos one bundi na bi cabri fo onen ban ɓa on ona man di am ɗo ɓa ɗum ɓe lak nyai e wa nga kilin kay ɓayre e ɗiɓi ɗi kiɗi kiɗi ɗe di ɗi ɗiɗi kiɗi mba tegal ci suuf day nanni da ciy nanni da ciy naan ñeenti guux waaw te dafa am garab gu ci ne kon jaajeuf papa. waaw kon nonu waaw. Euh, mi ngi nonu yu tagato gor yi. waaw euh, kon mbokk yi jeere ngeen jëf euh, mbokk téléspectateurs yi mi ngi nonu ñu ñewon tay ci jasab mbokk yi nak liñ leen ci relancer rek moy que ni wàllum awra fi la nek ci jasab man sek su fekkon damay doli wala ma yok sama awra fi lay ñew ci ñom parce que rebu ci ciow la te pajam san la go xam bo ñew ci dekk bi and ak ñom dugg ci all bi ah rombu rombu ñax mi ak mbom mi di nga xam wax deug yalla ca mam sëta koy jël te ñoom jël nañ ko te mbaar mi wanoon nañ leen ko am na nag ñuy jeexe jaax waaye gëm naa ne lu am la ñi leen ñi dogaale kay ñooñ ñooñ jaaxal bu leen tagati ci àll bi da leen ñëw ba fii mbokk yi nag ñuy wax gépp góor goo xam ne si nii am nga sa jàngoro feebar faju wér yàlla la neex bu yàlla dogalee li nga war xaw a xaw a cëkk ngeen baal ma ci kàddu gi nga ñëw fii ñu dimbali la ci seen xam-xam bi leen yàlla may waaw yéen jigéen ñi tamit ñu leen di ñaan bépp jigéen boo xam yàlla dogal na tamit sa sa sa sa kii mën a xaw a ibbeeku lool ah bu sa gor góorgóorloo bu am bu ni tol ah yawet nga dimbali sa al dank gi ci marché bi nga wutti nepp-nepp ah, nga xoj ko di raxasse sa kanam bu ordinaire bi baxna bu ko defé nga xawa delu tuti ba lu doli rek lum la jox nga daal di jël waye yor tamit kanam go xam tol na ni all bi ñu nek ah sa jëkkat lepp lum yor rek du la mën satisfaire ñu ko waxta waxtaanee réew mi la da ngeen jema gor gor lu ba mëna delu ci na ngeen demone donte mënul ne ngeen xawa delu tuti rek bu ko defé affaire yi xawa waye nak bu de da ngay jigen baye sa bop fo tok di toyak, ha, ah, di xawa doy mbirik bu ko defé mbir mi day xawa doy war gor ñang gor gor lu ñew jassap di fek si suñu papa yi ñu ni dimbali yéen dimbali len sen bop mi ngi non sen émission découverte la tay ci jassap xamna du yomb du neex nak dañ leen jox di dajal ci yeneen découverte jeer ngeen jëf kon papa ñoo ak kër you.